Adji Sarr ak Ousmane Sonko Macky Sall mosu ci woon a wax tey jii la ciy doog a wax wax ci naqar woo xamante ne nii am na ko ci ni mu gisee nag loolee doon am du yëfi nit. démocratie rek xajoo lu ni mel waaye doyte su ko seetaan moom président de la république sànq nag ci bi muy tëj ci conseil présidentiel bi ñu jagleel ndaw ñi la euh, wax lu ni mel muy xel dajatu lu ñuy xalaat lu ni mel nit ñi di lakk këri jàmbur yi ak seen oto yi te kenn du ci wax ñu déglu ko ci micro sunu reporter yi ñu toogaloon foofa di Fama Dione ak Abdou Diouf jaañ am na réew yoo xam ne citoyen xalam ñemewul xalaat ne di nga dem di attaquer gendarmerie gendarmerie fa la arme yi nekk nga dem di ko attaquer tribunal nga dem di attaque di yàq di taal këru jàmbur yi comme ça gratuitement loolu jàll na loolu mënatul am il faut il faut ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ñoo bokk réew mi kon nañu rafetal mbir yi mais nag ñu sant yàlla bi Sénégal nekkee démocratie parce que démocratie rek moo mun a muñ lu toll noonu te nag ku ne dafa war a xam ne dafa am limite boo xam ne boo ko rombee rek yaa ngi dugg ci beneen domaine boo xam ne buñ la toppee ci li ngay def mën na métti ci yow lool nag kon nañu delloo ci xel yi te xam ne réew mii kenn nu ko yàq ci pas possible am na réew yoo xam ne citoyen xalam ñemewul xalaat ne di nga dem di attaquer gendarmerie gendarmerie fa la arme yi nekk nga dem di ko attaquer tribunal nga dem di attaquer di yàq di taal këru jàmbur yi comme ça gratuitement loolu jàll il faut ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ñoo bokk réew mi kon nañu rafetal mbir yi mais nag ñu sant yàlla bi Sénégal nekkee démocratie parce que démocratie rek moo mun a muñ lu toll noonu te nag ku ne dafa war a xam ne dafa am limite boo xam ne boo ko rombee rek a ngi dugg ci beneen domaine boo xam ne buñ la toppee ci li ngay def mën na métti ci yow lool nag kon nañu delloo ci xel yi te xam ne réew mi kenn mënu ko yàq c'est pas possible